Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor ci salaamaaleykum mbokki Setsima TV encore une leen wax ne na ngeen ko bëggee rek noonu lañ koy xel di defee ngeen tey ñi ngi fii euh, ci euh, kër Sa Thiès fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante moom moo di actualité làmb ak xew-xew yi nga xamante ne euh, jot na fee jaar duñ def lu daal di koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu dugg moom ci li nga xamante moom moo di waxtaan bi saa ñi ngi lay dalal bu baax a baax waaw ñu ngi ziar bu baax di santaat yàlla di julli ci bi sant suñu ñaari waajur euh, di jiital aussi ci kàddu bi ñu génn àdduna yàlla leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana ñi tëdd hôpital aussi tamit yàlla yëkkati leen ñi caafete ginnaaw yàlla ñu caafete kanam aussi di ñaan yàlla mbas bi jóge fi Sénégal jàll na fi jàmm yàgg di nuyu aussi kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan yëpp di ndokkeel aussi tamit euh, màggal sëñ Fallu bi nga xamante ni jaar na fi démb Mm-hmm. waaw di ci ndokkal ñëpp nag rawatina njabootu suñu fàll yi rawatina suñu Abdou Karim am na solo euh, Sa Thiès ñun tam ñu ngi lay jaajëfal di leen nuyu bu baax a baax saa tey waxtaan bi dañu koy tàmbale ci euh, actualité actualité bu ñu ko waxee dañuy ñëw ci làmb euh, làmb tey toll na foo xamante ni bii tey mbëri toog nañ ñu yàgg bëriwuñu metti na trop am ñoo xamante ne xëyuñu am ñoo xamante ne gontuñu am na ñoo xamante ni bii tey fi mu toll nii actualité actualité làmb mi ngi leen di commencé raw tey Sa Thiès lan mooy say euh, li nga xamante moom moo di sa sa sa kii parce que gis nañ ne tey actuellement làmb ji ñun ñu bëri bëriwuñu surtout mbër yi donc naka ngeen ko gisee toog bi ngeen toog lu yàgg ba bëriwul leen actuellement waa toog bi moom di dañu bëri arrangé wuñu mu ngi mel ni kii xëy rek te te doo liggéey neexu ci xol mais nag euh, d'abord dañ ciy sant yàlla parce que fam loo xamante ni xëy na mënu ñàkk si feebar am na comprendre nañu xam nañu feebaram na loolu moom wax tëgg yàlla kala kulli aali dañ koy nangul doomu aadama bépp rawatina ak njiit bi fi nekk la ca des nag mooy ak euh, solution nag la war a xool pour jéem a xool nit ñu ibile suñu làmb xam nga ba léegi mbëri ñun moom ñi nga entraîné sàmm suñu ngoro si toog jàpp suñu ñàmbur ndax boo ñu gisee moom personnalité fulaak fayda moom yàlla moo ñaanal na ko bépp mbëraat Sénégal bi am solo voilà ba tey ci loolu euh, ça est-ce que yaakaaroon na tey actuellement ni comme ni ko gars yi waxee ñeneen dañoo bëgg jël benn solution solution bi mooy huis clos est-ce que huis clos arrangé na mbër yi en même temps est-ce que arrangé na aussi promoteur yi huis clos dafa saful ci làmb ndax xamuñu ko mësuñu ko dund ci làmb mais dañ ne ne ñàkk pexe pexe la mais pexe pexe du jeex. Mhm. ndax bu buntu photo tamit war ngaa xool beneen espace boo mën a jaar. Mhm. xam nga kon li ci des nag mooy dañuy jéem a xool ni ñuy sababloo parce que tamit euh, am na loo xamante ni waxtaan la am na loo xam ne kàddu ñaan la. Mhm. kàddu waxtaan mooy ibbi nañu làmb ci li ñu wax d'accord nañ ko wii club lañ ñu wax léegi nag kàddu loolu mu kàddu ñaan la ak kàddu. cas de waxtaanal rek la. ndax euh, mënoo jël plus de trent xaw ma trente trente deux xaw ma la ñu xaw ma. Mhm. presque place yi. Mhm. vingt deux vingt deux vingt deux places. parce mhm. que exemple mën ngaa pourquoi mënoo jël onze yi nga dugg nga nga dugg ko li ci des après nga bàyyi leen ñu am espace parce que tamit ñu jéem a respecté li nga xamante ni mooy. Euh, mesure barrière yi xam nga. gel am na fii masque am na fi xam te sax dina la permettre boo yoree sa testeur tey képp kuy dugg te corona it sax mun nga koo ber yóbbaale ko hôpital. Mhm. loolu mun na dimbali tamit euh, ñi nga xamante ni feebar nañ te xamuñu seen feebar. Mhm. su fekkee comme ni nga ko waxee. Mhm. man loolu laa gis quoi franchement. mais actuellement tam est ce que yaakaaroon ne mbër war nañoo dooloo doon benn ba ñoom aussi casse seen droit lu leen arrangé wul ñu xam ne lii arrangé wuñu ko. waaw pourtant c' est fois c' est deuxième fois parce gis nga tey euh, waxtaan bu mujj bi mbëri mag yi mbëri ndaw yëpp a ngi te ñëpp dañoo bennoo waa xam nga nag coow làmb day di ko déggee fu nekk ba tax na di nga yaakaar ni mbëri nekk ñu benn mais Gouding Toll moom franchement parler mbër yëpp ay xàccandoo dóorandoo. mais mais ça imaginez le huis clos mbër dafa am foo xamante ne supporteram da ko fay yóbbu mbër dafa am ñu foo xamante ni tëggkat yi dañ ko fay yóbbu mbër dafay am foo xamante ne bi bu geesoo xool ñi nga xamante ne ñi ci kaw tribune yi da koy gën a may courage nga yaakaar ne loolu tey bu dañee yow kese ak ak ak sa adversaire ci biir géew bi is ce que yaakaar nga ne loolu solution du neex du neex du li ma ki ci gën a yërëm mooy promoteur bi kii tëgg làmbam tey ji làmb ji ngay tëgg gudduñ toll nii boo ci amul tey benn sponsor boo xamante ni mën na la soutenir doo dem. Mhm. tey mbër bi lan la mën a dellu image am la la mën a jox. Mhm. ak supporters yi muy dugal ah. mhm. loolu la la mën a fay. image am ak supporter parce que image moom am na am na dafa am yoo xamante ni dafa am ay image ay image image auditeurs yi ñu soxla. am na ñoo xam boo la waxee yenn combat du la sa sponsor. effectivement loolu dafa am. kon nag loolu tamit da ciy joué. Mhm. promoteur bi moo ciy gën a blessé. moo ciy gën a blessé moom mi jël ñun nag waaw leen nag lañ mën sacrifice ñu bopp wàññi suñu cachet te mbër yu bëri def nañ ko. Mhm. ñëpp a ko def presque ci ma gis-gis. ok ñëpp a ko def. kon yaakaar naa ne kon ñu noonu deseetuñ dara suñu diggante ak ñoom. Mhm. xam nga kon nag ko dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi sàkku rek sponsor yi aussi tamit ñu gëstu leen ñu jéem a xool ban solution lañ mën a trouver ñu mën a jàppalante ñi nga xamante ni nag ñoo ŋànk dëkk bi muy nguur gouvernement bi maa ngi leen di ñaan aussi tamit ñu jël seen doole tuuti ñu may ci aussi tamit dooleel sax laay wax promoteur yi. Mm-hmm. parce que tamit euh, CNG war na dëgg dëgg làmb. Mm-hmm. promoteur war na di am làmb bu njëkk xam nga dat yi da lay sactiré ba dangay mujj di obligé di ñaan xam nga bu ñu demee ba làmb nag tool fi mu toll aussi tamit dañuy comprendre. te a métti ci ñun ndax woon stade arène nationale. Mhm. tey am nañu arène mhm. am na solo am na solo saa damay ñëw ci tamit actualité su ma ko waxee mooy que ne fan yee passé euh, ministre de la justice dafa génn communiqué noo xamante ne baaxul ci mbër yi mu ne manifestation yi nii gis ñi nga xamante ne entraîné nañ te amuñu lu ñu def amuñu lu ngi kii maanaam mbër yi daal la jël baaraamu tuuma bi teg leen ko naka nga gisee loolu. <laughs> ñun dañoo weex donc rek. <laughs> ñun mbëri mu lu ci ëpp lu baax kenn lañ ci dudd lu ci ëpp walaay lu baax kenn lañ ci dudd waaye dafa fekk ni yenn yi am na rek ñu tudd ko ci di wax ne nag moom juum na te na nangu ñu juum na dégg naa am ñu koy défendre ñu koy défendre jarul ñu koy défendre ci li mu wax ndax dafa wax dëgg dafa dafa wax dëggam. Mhm. wax li nekk ci moom nit nag bu juumee ndax xam ne juum na te mag la. Mhm. loolu war njuumte waroon na ko feneen fudul fii tey ñun bu ñuy tukki sax muñ ne na carrément buñ ne litre rek ñaar ah wóorul ndax ñoom ñoo doon dégage ñoom ñoo doon def ay Sénégal ay kenn xamul suñu der na waroon na koo seetal moo gën mu koy yàq. ndax bu ñu loolu yéen tamit yéen bëri. encore daal ñun moom man aw ma lu ma ci wax loolu sikkim laa suñuy kilifa ñu ngi suñu kaw mooy ñi nga xamante ne ñooy suñu magum làmb mm-hmm. engagement bi biñ ci mën a def nag bëgg nañ mais man de dëgg yàlla bu doon sama sago balaa ñoo dem ci yoon moom mii waxoon toog di yàq deru mbëri na génn taxawaat ne carrément maa juum ndax nag am na yoo xam ne rafetul. nit doo yàq sa deru moroom waxatuma ak sa mbokk jullit na koo xam ne defoo defaale woo te bu ñu bëggee succès bëgg affaire politique. dañuy fekk sax promoteur bu tëgg taxaw ñu fay jox xaalis na ko dem tëggal te tuddee ma drapeau bi. la mhm. effectivement. te dara liggéey ko ci Sénégal. fii ñu bëri noonu lañ daan na naxee nit ñi hmm. naxuñu nag de parce que ñun moom suñu yoon nekku ci xam nga ñun lu ñor mooy fay nañu dañuy dem bëri ci promoteur bi nga xamante ni dafa soxla am bi nga jox ko ne ko tëggal tuddee ma drapeau bi kooku sa bopp ngay ndax na xoo kenn. effectivement <laughs> am na solo waaye saa sama dernière question nag euh, pour ñu bañ la fay téye mooy tamit coow ci coow li nga xamante ni moom moo di coowal manifestation yi dégg nañ si sa tour sa tour ni ñu ko si déggee mooy dafa mel dafa am ay audio yoo xamante ni mi ngi daw sur la net ñu ne euh, nerveux yi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk bi di dóor xale yeeg yooyu mm-hmm. yow yow yow yaa leen formé yow yaa yow yaa nekk ci kanam pour woon loolu noonu ko gisee la la jàngat waaw lu ma métti la parce que man xaw ma sax nañu xaw ma foo ma nañuy former ay nerveux xaw ma nañuy former sax euh, ñoo xamante ni wàllu sécurité la ñuy def mais Fa est-ce que dégg nga dégg bi dafa mel ni voix boobu dañoo imiter sa voix waaw man na sama voix xam ko xam wala ku ma xam man mm-hmm. ku ma xam waxuma sax voix bi mais ku ma xam dëgg wala nga di ma di ma bàyyi xel am na yoo xamante ni doo ko sa gëm mais heureusement nag bu dee téeméer la peut-être ju ko ciy gëm juróom lay dëgg mm-hmm. ndax yàlla xam formé wu ma xa ànduma ak kenn koo xamante ni da nga ne neuf vingt mm-hmm. man sama àdduna lu ma yàlla may laay doylu xam nga tey bu ñoo toog ñuy waxaale say centaine de combat centaine de millions ci yow ngay dem di dinaan da ngay sacrifier sa bopp ci quinze mille francs mm-hmm. bi yëfi nit mm-hmm. man dama nekk ci actuellement bu avant loolu dama nekk di nekk ci négocier combat kon sañuma ko taluma ko te rafetlu ma sax tiim nit ñu koy dóor man Salif man. Mhm. waxuma loolu coow loolu de mais su ma doon dox ci mbedd nit jàpp xale di ko dóor wala koo xamante ni da nga ko doon di ko ñeemantal yàlla xam ne ma ko fekkee doo ko def. effectivement rawatina ngay def loo xamante ni rafetul ci sa dëkk rafetul ci sa der rafetul ci sa askan rafetul ci senegal gii mhm. man xam nga nan laa nerveux waxtu julli jotee ma dugg ñànk dem jàkka ja dem julli ñaan fa yàlla. coow li mën a fay. ma loolu laa taal taluma yéen ñi. Mhm. ñu koy wax nag peut-être gis-gisam la waxi wala xalaatam. waaye di ko moom moom da ko leen man doxuma ci waxuma ci demuma ci te fekkewuma ci te alalu nguur wala alalu gouvernement wala lu jëm ci loolu barki alxuraani karim dërëm lekkuma ko dërëm gisuma ko te togguma ci kenn ak ñoom loolu doo nga laa lu ma ci waxaat mais bi nga déggee coow lu mu def ci yow saa ñu jiiñ la loo xamante ni defoo ko non xam nga nit moom bu la jiiñee loo xamante ni defoo ko doo doo doo du def dara mais nag peut-être ñi nga xamante ni tey ñoom ñoom ñoo la bëgg wala ñoom ngay nekkan aussi tamit dala ni métti. Mm-hmm. parce que sama yaay moom lu ci ëpp moom moom moo ci gën a tiit moom. moom chaque jour woote léeg-léeg lii ma ne ko yaay man xam naa lu ma def xam naa lu ma deful dinaa seetal nag su ma der mm-hmm. waaw. nag yaakaar naa ni tey jii su fekkoon nit woo na ma wala mu audio ma tudd ci sa tur dinaa fexe bam sa numéro yow woo la. Mm-hmm. na la ndax diw lii yaa koo xoole yaa ko def. mooy dëgg su ma ko defee wala boo ko defee nga ne kon na dinaa la weer. fekkee defuma ko. nga sàng sa bopp sutura. man loolu laa gis loolu laa gëm man loolu laa xam boog man dama part. am na dafa am ñoo xamante ni yàlla mayu leen xel xelu ma la leen may. dëgg la am na am na solo saa li ñu woon ci waxtu ñu mu ngi jeex ñu bëggoon xam exactement lan mooy sa dernier kàddu. sama dernier kàddu mooy di ñaan yàlla jàmm yàgg fi xam nga parce que di wax ni euh, Sénégal ñu ñëpp benn lañu xam ma nañ ñaan yàlla jàmm sax Sénégal. fi maamu bàyyi woon jógewu fi jikko yi ñoo soppeeku. Mm-hmm. nañu nekk benn. tàmbale ko ci diine tàmbale ko ci chrétien yi mhm. tàmbale ko ci bëgg sa bopp bëggaale bopp jàmbur mhm. jël suñu xol yi rafetal ko diine gi ñu ciy rafetal mhm. ñu bennoo waayoo ndax loolu moo ñuy dooleel xam nga la res nag mooy di ñaan Sénégal bas bi yàlla na fi jóge ku nekk dellu ci sa jàmm di ñaan yàlla kenn ku ci nekk ca la nga nekkoon yàlla na nga fa dem fekk la la gën a jalu kala nga fa bàyyi si tamit àdduna bi moo tollu foofu du chaque jour lay neex ndax Sénégal moom ku ko xam looy wax rek ci réewu teraanga la dañoo baax dañoo waayu dañoo bennoo kon li fi xew du tax tamit aussi ñu ñëpp xam nga kii jaar fi kii jaar fi mm-hmm. yàlla na jàmm yàgg di la remercier tamit di kontaan trop ci déplacement bi di nuyu ñëpp waaw di jéggalu bu baax a baax a baax nag ci li nga xamante ni chaque jour wala ñu ngi toog di ko wax loo xam ne nag yëguma tinuma franchement parler xaw ma ci dara maa ngi jégalu baax aussi tamit ki nga xamante ni waxal na ma ko te xelam tollu fa. Mm-hmm. di ko wax ni daal man su ma ko gisee naa ko jox loxo te xamal ne ko àdduna mu solo. Mm-hmm. mais loolu muy wax noonu na ko xoolaat te bu ko nit waxatee na dem waxuma sax man mais pour en keneen. Mm-hmm. pour keneen te jii xam nga nit ku nekk ak. te sa xel tool na fa nga fa nga fa a fa nga fa a nekk. man dama am ay xarit yoo xamante ni am ay nit yoo xamante ni façon façon nit bu ne. yàlla yàlla fi jàmm Seydi Abdou Karim Sy di ko ñaanal. yàlla na ko yàlla bàyyi fii ak mbokk tarixe yëpp nag. waaw di di dugg fépp di ñaanal. ñaan mm-hmm. yàlla nag jàmm ak solution gaaw am ci làmb ji ba ñu mën a nekkaat suñu jàmm parce que tamit yaakaar naa làmb ji am na am na ni muy doxee tey jii euh, problème yi sax dootoo ko dégg. dootoo ko dégg waaw que làmb mun na loolu mun na fay loolu. Mm-hmm. di ñaan yàlla aussi tamit nguur gi ñu taxawuñ ci tuuti ci làmb. Mm-hmm. ñun bëri fond bi ñu jox ñoo ñu ko jox promoteurs yi. la ca des nañ ko jox ñu ko yelloo. man sama gis-gis. la ca des na ñun ñi nga xamante ñooy bari ñun làmb rek lañ bëggum ibbi soxlawuñu alal ñun li ñuy am mën nañ ko ñafe suñu bopp. Mm-hmm. lu ñu am rek mun nañ ko ñafe suñu bopp. ngalla nañ ñu bàyyi suñu làmb ibbi di jégalu ñëpp nag bu fekkente ni wax ji d'abord na fi. ñu xam ni maamatul lu fi baax te jubale te xam ni yàlla la suñu borom. macha allah amal jàmm ñu ngi lay jaajëfal Sa gis ngeen ko noonu la woon moom lañ fi invité woon ak actualité di leen jox dig daje beneen yoon fi rek lay xewee si Setsima TV beneen yoon incha allah ciao ciao. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te